jërë ngeen jëf seen ànd ak seen seen youtube tas info seen bi leen di xabaar saa su ne wéy leen di ànd ak ñun di wéy ak kii di Serigne Mor Asta ci li nga xamante ni mi ngi koy amal mu di ay question réponse yu nga xamante ni dana aju ci li nga xamante ni laajoon nañ ko ci ñeneen ci way mbokki auditeurs yi ci ay wax yoo xamante ni jëm na ci leen seen i bidéew seen i sarax seen tabian ak li nga xamante ni war di seen i couleur ak sarax yi nga xamante ni moom la war di àndal wala jaaro bi nga xamante ni moom la war a utiliser loole lépp moom Serigne Mor Asta Touré da ci ñëw euh, daal di koy faram ci faram-fàcce gu leerale ko euh, nga xamante ni amul benn ay kon ñu ànd ak moom bu dee gan nga ci euh, kër gi wéyal di abone partager ak aimer loole mooy la nga xamante ni mooy lay jàpp ci liggéey bi ngir moo gën a ñoom kon wéy leen di abonné seen seen YouTube TAS info kon ñu ànd ak kii di Serigne Mor Asta Touré ci eh, réponse yi nga xamante ne tey jii dina koy indi ci question yo xamante ne ci mbokk yi nga xamante ñoo ñuy teewlu daal ko poser kon ñu ak di Serigne Mor sa Touré. ngi bax Cheikh Abdou Khadir Lo. waaye Abdou Lo. waaw. le 10 le 10 troisième mois 1989. le 10 mars. waaw ah. ah, le 10 mars 1989. 9. ah 89. Eh. mi ngi tombe woon bisub àjjuma ñaari fan ci weeru baraxlu ñaari fan ci wéru baraxlu bisu aj ñaar fan ci wéru baraxlu fukk fan ak ci burjul hut la tour de moy 12e si moy burj bi mujj ci burj yi sanatir ndox la bu dé say xeeti sarax moy lepp la ci ciép bu wala jën wala ndawal waaye na doon bu ñurut soow sa sarax la xéetu ciép xorom yëpp ci say sarax la bokk. ok. waaw bàyyi ko xel. burjul xóot burjul xóot waaw. bu dee sa biddiw mooy Nipton. vert vert eh, vert bulo mooy sa couleur. Ah, ok. jërëjëf. Hmm, incha allah jërëjëf. Bismillah, bu amee ku ne ci ligne bi. Bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi ziar. ñu ngi delloo siyaara bu baax. waaw man damaa duggoon sànq connexion bee kii woon. ah waaw bisimilah. 14 septembre. ah. 1975 14 septembre 1975 septembre. septembre. waaw ñu ñaan ku dugg mu tëj kiyam. 1900. 75. 1975. 14 septembre 1975. mi ngi nekk bisub dimanche. waaw waaw. ñaari fan ci weeru koor. ko ñee moo tax dégguma dara waaw sang bi mu ne tëj mu ko ki ki yor buru e bi tuuti sëñ sëñ bàyyi ah ok dëkk africain yi daal lañ su mu ne tëj mu tëj ko waaw waaw allo allo bu ma ne tëj kéem mu jàpp ñu tëj ko waay ndax mu ndax mu leer su ne mu ko ndax mu leer ku tëj mu tëj ku dugg mu tëj kéem waaw soxna si ki ah, kii ci bi borom 113 bi su mën a tëj kéem bisimilah soxna si. waaw ma ne 14 septembre 1975. dama ne bisub dimanche la. yaa ngi may dégg. waaw dëgg la. la di juróom-ñaari fan ci weeru ko waaw hmm. waaw. di ñaar fan ak ci jul xasraaw. Hmm. di ñaar fukki fan ak ñett ci biir masraaw boo ko mën a tëj sëñ abdou micro bi waaw sëñ abdou ñaar fukki ñett ci burjul xasraaw waaw sa burju mooy burjul xasraaw mooy la tour de verse. Hmm. werse wi Wah, biar vierge Biar vierge waaw vierge moom mooy Mama burju burju juróom benneel ci burju yi burju juróom benneel Hasra. xasraaw hmm. eh, saya tanya sa lah. Hmm. suuf la voilà mercure mercure eh, bu dee sa couleur ñeenti couleur yëpp moom mën naa dox ci yow couleur bu mboq bleu vert ñuul vert ñuul waaw mhm. yooyu yëpp ci say kii la bokk waaw mën naa ko ñeent yooyu yëpp boo ci rek mën naa dox ci yow mhm. bu dee say sarax nag mooy euh, meññet yi ñore ci biir suuf wala muy tëdd ci kaw suuf moo xam fruit moo xam lu mën a doon moo xam lu jum ah wala légume waaw yi bépp meññeet boo xam day ñoree ci biir suuf rek gerte ci la bokk puloox carotte pataas ñàmbi eh, xeet yooyu ba ci xeeti lujum yi pataas te xeet yëpp ci say sarax la bokk. ah d' accord. waaw ah, incha allah. incha allah mais ban la ban la mën a àndal comme comme. burju la asraaw de am na yu bari yu mën a àndal. burju la asraaw mën naa ànd ak burjul xóot mooy tour de balen. Hmm. la tour de Babel man naa ànd ak man na ànd ak burju sarataan la tour de euh, cancer boobu sax la na a mën a àndal moom waaw cancer hmm. la tour de cancer mooy signe cancer boobu hmm. yooyu moom moom gën a mën a àndal moom waaw nga bàyyi nga bàyyi ko xel incha allah mën naa ne tamit burju sharon aleykum salaam sauru moy e ban papa La tour de uh, Toro. Toro. Burju Sauro mooy burju e, bi yor forme nag. nak waaw ok. ok. inshallah allah ya, ya. papa maa ngi nuyu. ñu ngi lay delo nuyu siar yeb sangi bi. maa ngi lay ziaré bu baax maxtar ak maxtar Gueye la syah Mukhtar ñi lay nuyu di la siyaar bu baax. asalaam. Mukhtar ma ngi lay siyaar bu baax baax. ñu lay delloo nuyu ziar yëpp sang bi. ginaa loolu di rafetlu xam-xam bi ak ñëwén gi yëpp ndax bo bo bo bu la neexoon nga nga toog ba nga toog rek da du tee li nga bëgg di ko da nga koy. ah ndeysaan ah moom day xam nga ku ja ku jàngale war moom. waaw ñun nag xam naa xam naa xamoo ñu waaye xam nañ la bu baax a baax a baax a baax. ah ndeysaan Cheikh Moustapha ak Sarr. bu wér a wér. waaw le 7 août la 2003. 2000. 3. 2003. waaw 7 lan 7 août. waaw. le 7 août 2003. waaw. ah wax d' accord mi ngi tombé bisub alxames. juróom-ñetti fan ci maamu koor. bisub alxames. waaw juróom-ñetti fan ci maamu koor mooy jumaada saaniya jumaada saaniya hmm. juróom-ñaari fan ci jumaada saaniya fukki fukki fan juróom benn ci burjul asad la tour de lion burjul asad mooy burjub juróomeel mooy mooy cinquième signe biddiw mooy jant bi tabi xam tamit ñaar yu euh, couleur mooy lépp loo xam ne nekk na diggante ruus ak mboq wala soon ay couleuram la bokk Ya. bu day sarax mooy lu mel mburu mburu ban yi mburu suukar ya. tànkal ak yooyu yëpp ci saraxam la bokk ba ci lépp luñ togg ba mu ñor rek mën ya. ko sarax jërë ngeen jëf mi ngi noonu loolu mooy waxtaan yoo xam ne kii di Serigne Mor Asta Touré doon na ko amal ci seen seen youtube tass info kon mi ngi non wéy leen di ànd ak seen seen youtube tass info ngir man dem lepp lo loo xam jëm na ci waxtaan yo xamanteni mom mi di Serigne Mor Asta Touré da koy amal nek waxtaan yu am am solo jëm ci vidéo ci sarax ak li nga xamanteni modi walum tabi'a ak li di jaaro nek mbir yu am am solo yo nga xamanteni képp ku ko diglu da nga ca gisuk njariñ da nga ca yokkooti ab bind bu nga xamante bu bes lay doon kon fi rek la seen seen youtube tass info wéy leen di abonné partage ak aimé appuyé ci cloche de notification bi appuyé ci cloche abonné bi loolee mooy la xam te ne mooy lay gën a jàpp ci liggéey bi ngir ngeen man di jot lépp loo xam te ne dugal nañ ko